mu ni ki gën a kawe ci nit ñi itte gën ci gën ci ëpp ci daraja mooy ñi nga xam ni seen bànneex ci xam yàlla nekk ci maarifa dañ ko seen bànneex dafa nekk ci loolu ci lañuy xamee kon sëriñ bi fi mu toll ci biir nit yàlla yi ndax moom dafa wax ni wala mu azal musuma dañ mun su xàqaltu dëpp ma xelloo taaliba معرفة بالله جل غائبة مش ما دا ما خلو لي دي ساكو معرفة اك خم يالله يعني. لول رك ما سنخ فجلت بين العلماء والأولياء ميور دي سيد برون خفامي كون من نتو يالله ماني موريكو عندك سما اك سما اك سما لب ساكو خم يالله كت مرون كون مم نك اي اتي مستجنين te loolu yi mu daan dund ci la yaroon ak njabootu boppam ci la yar mag yi taalibeem yëpp ci la leer ci ittewoo la gën a kawe muy suñu borom murid yëpp li mu leen digal mooy nañ aj seeni itte ci li gën a kawe mooy ngërëmul yàlla isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahman mu ne murid dëgg-dëgg du bëgg lu dul ngërëmul yàlla te suñu borom li wax ci alxuraan mooy wa ridwaanu minallaahi akbar kon itte ju kawe mooy set la gën a kawe nga aj fa sa itte fala aj fala aj lu xay su xasida waaw mag ñi mu ko jàngal itte ju kawe sëñ bay jaxase daa wax ni xarit dëgg yow bul defu tëddkat ndegam bëgg ngaa def nitu tedd nga ndegam bëgg ngaa tedd bul tëdd yow te woppoo bu wér ndaxte koy faaxu la bàyyil faw biddanti te yeewu njël ku dul yeewu njël kat du jot cant ga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 léegi kon xaajal nañ diggante mébét yu gudd ak itte ju waaye lan moom koy may nag itte ju lan mooy sabab nit ki mën a am itte ju xam nga dafa bari lu ñuy jàng ci diine ñu naan la muñal santal bëggal yàlla defal nangam waaye boo bëggoon a xam baat bu ñu la ci noonu lu muy tekki dëgg doo xam ne doon loolu yi day moo tax yooyu def tekk di ko jàngat lan lay tekki am na ci solo لكن أبو يوحي إتي وخنين هو واي لن موكي سا لن موك مانا ماي نيتك لو دا دا لاج ني جانغات لن مونوك مانا ماي ني خول باخام يالو نانت ما جار ولد كون لي ساو إتي جو كاوي بوكو لي سي لي سي غينا فيس خم خم خم دا نيت كي مونتا بوج لوم خموت مونتا اج إتين تي لوم خم كون لغي خم جي موي لي غينا فيس تي لوم مانا امي إتي جو كاوي ndax bala nga bëgg daal da nga ko xam nit du bëgg lu mu xamut du ak ittee nit ci lu mu xamut moo tax yonente bi yàlla digal ko ne ko waxul rabbi zidni ilman moom daf ko ne neel saa borom nag ma dolli xam-xam kon la ci jëkk mooy fexee dolli ko xam-xam ngir sa itte mën a kawe ndax loo xamut doo ko doo doo ci mën a yëngutu doo ko bëgg sax jàng alquran te di ko settantal bokk na ci lii may xam-xam waaye bokk na ci lii may itti ju kawe lii may itti ju kawe ndax danga ci gis danga ci gis lu ne ndax alxuraan dafa teew dafa nett li li teew ak la jàll ak liy ñëw boo ci amee ak santal nag mën naa pousse ittee ba foo toll na nga jëm ko weesu waaye jàng siira yonante bi sallallahu alayhi wasallam fa mu jaaroon ak fi xam ni ak ndaan fay la fekkoon ittee ju kawe moo tax mu taxawal li mu taxawal jàng seede ba ak lam ci daj ak lam ci doon sonne ak la tax lam taxawal fa mu jaar bu taxaw dana tax nit ki itteem kawe dana tax dina kawe na kawe itam war di ko di ko toppaat baax na ci loolu toppaat seede yoon itam di ko diglu di ko bàyyi xel naka noonu nit ñu baax ñi fi mas a jaar te doon ay kilifa dëgg te taxawal fi dara yi ngay xam seeni histoire seeni jaar-jaar dana yëkkati yëkkati itte ndax yow boo juddoo rek gis ñu naan Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa gis ñiite ak njabootam ñu di leen kat kat di leen warmaan di leen barkeel di leen naa nga nga jàpp ni doo xam ne ko saw dëgg doo xam ne moom Sëñ Tuubaa woote wutoon ak nguur jógutoon ngir lenn lu ngir jëm yàlla boo xamee ni sëriñ bi am na weer wu mu woor ba mu jeex fépp ñam duggul ci gine ab xaar la teg bu dog jotee mu mu dugal ci baaraam def sunna si dog bu xëdd jotee mu dugal baaraam ba jot ndox mi def sunna si xëdd ba weeroo jeex ak coono yu mel noonu nag yu bare bare bare bu boobaa dana dana tax yow foo toll rek nga xam ne doxagoo mètre pour nga jëm a góorgóorlu pour jàll waaye xam nga comme boo doon itte ju kawe xam ko dana kawe itte xam aw doxin